oto fu tonnage war a dem ñoo koy jël te fañ toog duñ fa jóge ñu demandé assainissement ci secteur boobu lourd bale gouvernement banque bëtam banque loo xam transport de passager wax na ko junni yoon buñ bëggee nit ñi am jàmm dañuy encadrer le transport a besoin d'un encadrement te encadrement bi ñu ñun mënuñ ko def les centres de formation wax nañ ko dañ ne région bu nekk am nga subdivision de transport région bu nekk day fi joxe permis région bu nekk da nga joxe visite technique mais ñu ne lu tax région bu mënti doon warul am formation Sénégal rek nga gis ku am permis 17 heures nga dawal oto mais ñu ne ku amati permis néew ñu mënoo dawal mais am na règle yu ñu la war a lu ñu la war a imposer nga ñu defal la formage benn recyclage ba nga am au moins benn CAP benn document benn attestation bu war na yow mii def nga sa théorie def nga sa pratique mais génn nga ci centre bi. mais yéen aussi est-ce que amu leen ci part de responsabilité. le euh, propriétaire oto yi yóbbu souvent dañuy am seen i jarbaat fayee ko mu dem defi auto école am permis bu ñuy jox ko oto muy dawal aussi. loolu laa la wax. dama ne muy poids léger muy poids lourd mhm. transport en commun boo amee sa permis ba pare da nga dem centre ba. ca région ba nga amee permis ñu defal recyclage la attestation pour nga xam ne yow mii kii moom non seulement. am na permis mais amaan na beneen xam-xam bu ñu yokk ci moom mais dama amul région yi bu ne amul. amul y' a aucune bu dotee de centre de a pas. mais dañ leen a dégg euh, ngeen di wax ci cérémonie bi nga xam ne mooy am muy remise de cahier de doléances yi nga xam ne palais de la république la doon amee ñu fàttali na sax xarit la foofu la président de la république jëlee quand même une bonne nouvelle pour la presse mooy mhm. tuddee école bi lee di sesti ki lee di Mame Less Camara muy loo ah, xam ne quand même voilà bien euh, mérité euh, bien mérité quand même <laughs> moom Mame Less Camara moom la nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu al suuf si kawam ñu fas yéene ko tuddee centre centre bi nga xam ne fa la ñuy tàggate taskatu xibaar yi di di tax ba turam xëy na ni ñu doon ko fàtte ci mi cim tasum xibaar mais Gora Khouma ci côté li nga xam ne rek moo di euh, remise de cahier de doléances yi ma doon wax sànq nga du mooyu ko est-ce que demoon fa xëy na li ngay wax ni nga teg ko euh, ci taabal ji du ëpp solo parce que ñu ngi la dégg bërki dem nga di ko wax que ni la nga tegoon dafa amul luñ euh, maanaam tàngal ceeb xam nga da yenn yi dama ne caaxaan rek gis nga tradition dama ne c'est mondial que malheureusement réew yi def tradition boobu dañoo évolution ci seen liggéey mais ñun point mort lañ taxawee travailleur boo gis ba nga yenn loxoom di jooy man waxuma kayeb 2023 de waxuma boobu de waxuma la bu bu 2022 waxuma 2021 mais bu kayeb 2019 sax bu ñu ko réglé woon rek affaire bu baax rawatina tey jii ñun dañoo nekk ci tiis transport dafa nekk tiis bu garaaw garaaw garaaw dañoo am ay doomi sénégalais yu dem ba Burkina Faso jihadiste taal oto yëpp fi nekk depuis samedi chauffeur ak apprenti yëpp. réeroo ci dëkk bi ñu ñu jàppaleen xam nga loolu gouvernement yëg na ko te ni ñu ngi ciy interpellé à travers votre organe là ministère des affaires étrangères. mu mhm. actionné l'ambassadeur ñu fexe ba ces 19 sénégalais là ñu indi leen. alors c'est atay moom lakk nañ leen ak seen marxisme moom kenn bokkutu ñëw moom bokkutul moom te c'est pas la première fois Mali dañu fay takk ay lakk fay oto yoo xam ne yi ba léegi réglé wul te gouvernement moo war a jël ay motuwaayam xam nga lan la moom moo am ak oto du jéggi frontière bu du jéggi frontière comme nag baarewul frontière bi kon mooy wax ak njabootam dem leen mais bu gisul lu mu xam daa war a tëj frontière bi nga xam léegi di nga am droit léegi yawe fii yëpp frontière bi du dem te am benn problème mais fi mu nekk rupture de charge amuñ ci droit te say doomam mi ngi lakk dee Mali di dee Burkina samedi laa la wax samedi bi set oto sénégalais centre emprunté yi lañ yore woon ak sécurité ñu nangu ko torturer leen fi mu nekk nag ba ñu nekk fi nekk nii ka leen fa jéem a gérer ah leen doon jox information yi te amul réseau amul dara dañuy sàcc rek wax léegi situation yi. consul bu nekk foofu sénégalais nekk. ba léegi amul réaction kon ministre de l'intérieur am na ci cër pour ci cër puisque problème de sécurité la mais ministre des affaires étrangères am na ci cër ministre du commerce am na ci. am na ci sénégalais de l'extérieur am na mooy jër ki gën a rëy ci cër yooyu sénégalais yaa nga fa de emprunté ak sa seen oto tàkk na seey na. mais ñoom mootu ñëw ñëwati xoom nag nu gouvernement bi def ba ñooñu ñibbisi te gouvernement yaa xam président Macky Sall bu dee sa sous région bi wóorutut bloqué sa frontière ñu ñun bu ñu yebatee marchandise yem ci frontière ba duñ ci am benn problème mais fi nekk nii ku yeb marchandise dem ci frontière ba da ngay am problème parce que accord bi moo tax. mais ñi jóge ñi jóge fii di yóbbu conteneur yeeg yooyu nag di dem ay mal yeeg yooyu kon xanaa ko ndootuñu liggéey. non dama dañuy dem ba foofu yam bu président Macky Sall dangay am droit jële sa conteneur fii. dem ba frontière ba yemale ko fa te doo am problème ak douane mais actuellement ku ko def da ngay am problème ak douane parce que accord moo te mënuloo waaye tëjal ñu si frontière bi tëjal ñu frontière bi mais boo ko sama conteneur damay dem ndax bu ma demulee aw ma droit jaay ko fi aw ma droit déserté ko fi aw ma dëcc dara parce que marchandise boo xam ne bi warul laal Sénégal la te force ñu koy def te doom yaa ngi dee. 19 19 Sénégalais yooyu nag muy chauffeur ak apprenti président ñii say doom lañu say sët lañu fexeel ba ñii ñibbisi dee gi bari na ci Burkina Faso dee gi bari na ci Mali gi boo ñu bind leen këyit baa nga joxe ndigal ñu teem suñu frontière bii dañ la gërëm dañ la sant. ah ba ñu tëjee frontière bi seen diggante Sénégal ak Mali aussi fi ngeen nekk aussi. li wax ni carrément non non non mais su fekkee contexte bi bokkul. mais aussi fi a ngeen génn pour yuuxu. ca frontière ba dañ faa taxaw ci frontière bu ñëw wàcce man li may wax président pour que ñun bu ñëw ci frontière ba am droit wàcce loolu lay wax mais grève bi bu am bi amee marché bi bëri yow amoo droit wàcce boo koy laal duwaan di la tëj ci kaso bi loolu lañ wax ne bokkul contexte si bokkut ñun li bi soxla mooy boo ñëwee comme suñu diggante Mauritanie depuis 2011 ba léegi rupture de change la da ngay wàcc ci kii bi kii jël nga ñibbi moom de mu indi nga indi ñun loolu lañ soxla suñu diggante Mali bu am nag na jël ay responsabilité bi te responsabilité bi des na nañu génnee suñu doom yële lap biir biir Burkina Faso nañu ci dimbaleeg yàqay monsieur le président yàq say service surtout ambassadeur bi ñun pare nañu gunge leen ci ci xalaat ak ci jëf recensé nañ oto yëpp xam nañ turu chauffeur yi xam nañ turu emprunté yi dama leen ci gunge ñu fexe ba suñu doom yooyu suñu rakk yooyu suñu jarbaat yooyu ñibbisi <laughs> mais Gora Khouma yaa ngi koy wax sànq sax euh, fulaar bi nga euh, rango nii bu ko gisee mu di waa CNTS ak centrale yu bëree bëri euh, yi mhm. déggatuñ leen dama ne wax du neex central ba ma bokk proposé solution da bariwul central bi ma bokk ak beneen na ci yam tànk laa la osé wuñu def syndicat syndicat jot na la ñun ñëpp dam dóor ba dama taabal ji bañ ci wut xarit bañ ci wut mbokk bañ ci wut pos def grève générale depuis ma jalaa la ba léegi grève générale wul kon ku doon am dara ci travail ba depuis ma ja ba léegi amuñu ko mais kenn ku ne toog fa nga toog li ma gën a métti ñu signé pacte pacte mooy naam nañuy waxtaan waa ki ngay waxtaan mooy kan ku la dul defal tous. du leen déglu ki ngeen di waxtaan nga ne damay waxtaan ak moom pour da nga fay tardé sama pare rek dama ne centrale yi nañ dimbale syndicat de base yi syndicat base yi nañ dimbale centrale yi nañ waxandoo génn kaddu problème bi fi nekk mu ci enseignant yi mu ci transport muy santé yëpp am problème waaye duñ taxaw benn ñu réglé ko dañuy war a taxaw na ko dañ koy réglé. mais tant man maa ngi beru di def keneen di beru def du fi jógee tey am nañu moyen nag am nañu force bi nag. mais grève générale moom du solution monsieur Xuma. ah lu tax du solution. ak contexte bu ñu nekk crise économique bi ñu nekk est-ce que loolu sax euh, parti war na ko wax woo. secteur yi ñu nekk grève générale loolu maa dama ne. maa koy woote xaw ma dinañ ma ci fekk xaw ma boo bàyyee temps central réagir ñu man dinaa joxe date boo xam bi ah pour grève la comme nag central yi suñu kilifa maa ngi yuuxu ñoo bu ñu ko defee concertation ba joxee dat alhamdulilah rabbil alamin ñu def grève générale bu ko defut man Gora Khouma union de Sénégal dina santaane grève générale bu réussir ma jël bu échoué ma jël. est-ce que dina di ngeen toog parfois di proposer ay euh, joxe ay solution euh, au gouverneur. Ah, seen ministère de tutelle parce que yéen fu ñu leen dégg grève grève comme si grève mooy seule alternative dañuy waxtaan dama ne. waxtaan toujours est-ce que bu dee waxtaan bi grève lay jeexee moom waxtaan aha grève nag day a wér moom mi jiite dina xam ne ñii am nañ fulla am nañ fayda mais buñ grèvewul amuñu fulla amuñu fayda li ma gën a métti rek ci gurgóoram muy suñu ministère muy ministre keneen da ngay yuuxu góor xuma day grève baa keneen grève ñu ñëw table négociation la wax ñu la waaw indi këyit gi ñu signé nga lebe sa moo doon ñu bañ cee def tous yow sa base na la lu tax nga def la nga ne signature tax mooy indi respect des accords gor war naa moytu bañ a signature mooy doomu aadama boo ko respecté doomu aadama nga boo ko respecté wul doo doomu aadama bàyyi ma nga man bu ma naree signé lu ma ko def ma bañ a signé état ak lu ñu def pression ci kawam te mu wóor a point bii mënu ma ko du ma ko signé pour gagner dignité am mais yow pour rek kase graw jëna jar ñu signé la ko bu paree ñu wàcce la lële taxaw defe na nag ñoom ñu ngi ci parce que kase nañ uri ba nooy du yëfi gor gor pire lam nungu dana am nungu naa ko lam nunguwul boo ko doon rey tamit ne nunguuma ko te politique yëfi jullit la yëfi diine la sax laay wax mais ñu bari dañuy jël wax politique waxu caaxaan bañ na ko caaxaan sax ñu ne kii politicien la c'est grave. Mhm. politicien bu du wax dëgg boo waxee dëgg sax duñ ko ndax ku fen sax ñu ne waaye ah waaye garaawul politicien la. ci ñun la ñu bokk rek Sénégalais comme malédiction. Mhm. ci ñun malédiction loolu dañoo war a xam ne politique pour régler problème askan wi la. mais loo cay def moo xam mairie nga moo xam député nga moo xam lu mënti doon présidentiel nga gor nga war a indi. di wax looy def. ñoom dafa am ku leen jiite euh, donc ki leen jiital ki teg ministre bi bu fekkente ne ministre bi li lim xaati moon euh, jëfew ko xëy na moom mooy responsable bi directement. Ah. Mansour Faye li muy waxtaan ak yéen yëpp buñ ko jëfewul aussi euh, est-ce que c'est ça. mu démissionné man bu la ministre man yow avant ma ci. say proposition c'est radical monsieur ne. bi laa déglu man bu dee man góor xuma dañ maa def ministre. Mm-hmm. ma am contentieux ci sama biir ministère ak samay liggéeykat. Mm-hmm. par plateforme ñëw na il faut que ma waxtaan ci ba mu xam lan la ci gouvernement man il faut que mu waxtaan ci président ba xam lan la ci man mais bu ma bu ñëwee ne demal nga signé lii demal nga signé lii ba ma signé ko laa la wax engagé wu boo ko respectul ma démissionné man. mais que est-ce que ay préavis fi mu nekk nii bu ñu ko déposé Sénégal dinañ waxtaan ak ñoom souvent yéen ñi nga xam ne yéen faral demee grève parce que dañuy gis ñu bari xarit dañuy invité kenn du la faale dañuy bàyyi ba nga commencé grève ñu doog di woote waaye dama xam nga lu ñuy wax grève du réussir loolu la ci ko wax et réaction état mooy du réussir force reste à la loolu lañ leen jëkk a wax bu nee nag bu gisul lu ñu xam ñu soog a woote bu kii bu wootee loolu leen wax ñu ne waaw duñ ci def tous moo tax il faut ñamal leen grève générale. waaw grève générale de métti de surtout ñun a dem biir biir Sénégal Abdou Diouf daanaka mais kenn ku ne xam ne ne au temps de parti socialiste bi fi Abdou Diouf nekkee travailleurs yi la amoon léegi daaw amuñu ko bien vrai que léegi dama waxee ñu ne ak salaire la gën a léegi la gën a fort mais la nga mënoon régler ci ay jamono mënu kaa ko amee amul njëriñ besoin yi ñu besoin yi am léegi jamono jooju amul moo tax ma ne jamono jooju t'as pas besoin nga bu daanu mhm. ko amee tamit ñu xam ne ñii def nañu syndicat question syndicat du question saa boo defee grève rek li nga bëgg da nga koy mais sa rôle la boo négociation mënul sotti nga di jiite da dem grève. kon tey yow selon yow euh, feetu premier mai bi nii dafa war na jàll au lieu de ñuy dem palais. ñu bañ a dem palais xanaa dem xam defam. photo ak a signe <laughs> président di signe ñoom ñuy signe travailleurs yi di jooy. te yow sa boycott bi kañ nga ko nar a arrêté tout ce sera tout le temps comme ça. chaque tant que laa la wax benn kay année ñëwuñu ñu respecté na mënuñoo régler sax problème mu deux mille vingt trois mais kaye deux mille dix mu ngi nii dañ koy régler bu ko régler mooy indi de mille vingt quatre ba deux mille vingt loolu laa d'accord mais toujours ba toujours ci poubelle ñu ñàkk fayda ñu ñàkk fayda dama ne tradition la mais ki kii dem di négocier ki dem di poser problème kan moo ko yóbbu lu travail rek ko yebal mais ñun ñoo war a xam ne tradition bi ñun ñoo war a suñu leader ne la bu leen dem mais bu ñu ko waxul tamit bu leader yi central yi bayee dem ñun lu tax. kon suñu soxla faju leen ko ndax nungu loolu leen ci président moo tax nungu bëggu loolu faj mais ñoom tamit il faut que ñu dem seeti président bu demee jox ko carnet bi bu ñu ko joxee carnet bi lundi mardi mu dem mbëbës ñoom tamit ñëw dellu si waat parce ñu joxe ko dama ne dañu war na bu kenn joxe tous na leen dem guerre maa day taali guerre mu ëpp guerre sociale laa wax de guerre bi may tax may wax moom waa la ñëpp xam ne du arme <laughs> arme négociation moo jiitu lépp <laughs> mais négociation bu amul njariñ ci corporation xeex fa des. te xeex dafa légal

xaar leen wala ki war a toog après recevoir leen bañ bañ a xaar xam nga xam nga ku war a dem ak wóorul dem loolu politiciens ñoo ci agir on le sait ñooy xool koy dem ak du dem ñun suñu yoon nekku ci lool mm-hmm. Macky Sall naka fi desee juróomi fan day tere ñu def syndicat na fi desee fukki at day tere ñu def syndicat ñun xooluñu approché élection ñun suñu soxla moo nekk ci besoin urgent foofu sax la dàqe nag mm-hmm. foofu sax la dàqe moo des wax benn jour ma leen ab jàngalekat du gerew vacances école tëj jàngalkat ne damay gërëm fii sax la baaxee fii sax ñu jëm veille élection fii sax la la xeex jaadoo chantage day nuróol de. doy du chantage. moom day nuru laa wax du chantage man yàlla bu ma bokk ci chantage gis nga man du ma politicien man contre ma kenn kenn la contre pour mu leer. samay soxla rek laa am man samay soxla. yi nga saa ma la koy laaj xaw ma ci dëj nga nekk xaw ci ngénte nga nekk dama la koy laaj. Macky Sall bu nekk ci bànneex dama koy laaj bu naqaree ci naqar dama koy laaj. su pëccoxoo amee est-ce que mënoo mu ñu def bal à terre lépp woote jàmm xam nga gënoon pour que lépp ñu teg ci suuf mooy accords yi nañ ko respecté bu defee ñu mën a muñ sax li nga xam ne si guñ ko ñu muñ ko mais man li ñu signé pare lu ma ciy xaar bis bu rafet Macky Sall bu nekk ci mbégte damay xeex. bu nekk ci kontaan ma damay xeex puisque respect des accords laay wax loo xam ne nag amulul accord mën naa ne kat dañoo jug ay élection mën nañu bàyyi bay après les élections ku gagné ñu laaj la ko mais li nga xam ne yaa ko waxoon ci bi ngay nekk en exercice yaa ko signé sa njëwri la ko signé lu ma ci xaar yan nañ ne woon dimanche prochain la élection présidentielle day tere ma xeex man sama yoon nekku ci kuy gagné ku du gagné man syndicat laa samay problème rek laa am soxla Macky Sall bu réglé problème travail yi yëpp bàyyi fi transport routier deful tous dara la deful mais bu ba bu réglé problème transport routier man pour man c'est le champion routier moom gars yi nee nañ dañoo am doole trop ba tax na des fois dañuy dinañ ci de yu leen ñu mm-hmm. boobu dañ koy rectifier waat réglé ko ba ba xam ne ñoo bokk benn bëgg-bëgg kon yéen a ngi ci waxtaan waa dama dañ dañu obligé obligation la d'accord obligation la gis nga nit buy liggéey dakaa war a tedd wax naa ko seen chroniqueur doo ne nañu dimbale waa régi ne nañu temps jeex na tàkk monsieur Xumba waaw maa ngi gërëm ñëpp <laughs> la bàyyi nga daaneel di interpellé waat madame la ministre des affaires étrangères. Mm-hmm. ay doomam lapp nañu ca Burkina. na dem jëli leen. ngi lay dégg ñu mën nañu ko gunge ci xalaat ci ay pexe. Mm-hmm. ba ñëw. d'accord. di réew ñaan nag réew mi jàmm. madame la ministre mi ngi lay dégg jàmm moom maa ngi koy ñaan.